إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرسرى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي مبكي تاليبي نيوني باخدين سيار سيسين تلفزيون توا موني بي تي في لكل وراجع خز أونلاين توا موني بي تاني نيوني بتوا مينا كي بيسو خز دبينا خامنئ مم لني دف كي توا إيطالي كي إديسون 2007 بي نك فكيون أغنيات نيوكو يتحوى في توا إيطالي يتحوى نك أكيان كي جوري خامنئ كي بسم الله لين ينغو مين سرنشلي مانو نك فلج توا sëñ Souleymane gannaaw bu nuyoo baax di la ziar rek di la masawu coono yi nga xam ne fan yëpp yéen ngi ci ci wàccaay bis bi ñu leen ñu lay laaj rek bis bi yow naka nga ko dundee ak naka nga ko gisee nga xam ne daanaka at yii yëpp yéen a ngi ci yëngu wax di yàlla ren di fukki yoon ak ñett ñu gis ne am na coppite yu bëree bëree bëri yu bees yoo xam am na ci wax dëgg yàlla ñu lay laaj yow yan yëg nga ci am ak yan gis-gis nga ci am sëñ Souleymane ci bis b waaw bisimilah sëñ Mbacke Ndiaye ñu bu baax di ziar mbokk taal yëpp seen liggéey ñaan yàlla sëñ Tuubaa barkeel lépp na lii moom ku xool addi jàll xool ren xam ne sëñ Tuubaa teg na si loxoom kon nag moom na si ñëpp jàpp te xam ne lii moom lu wér la lu dëggu la loo xam ne tamit maam dundi xasida la ñuy def tey mbooloo mi dajee yëpp moom daanaka euh, sëñ Tuubaa leen boole kon nag moom bisub daal a ngi nii ku si waaye mën a jàpp na si jàpp ngi jëmmi sëñ Tuubaa nit ñëpp ñoo ko bokk waaw jërëjëf suñu sëriñ am mel ne boo ak léegi wax yaa ngi daw ko dikk rek xam naa yan soññee kon ngay indiwaat rek xëy na ñu bàyyi ndax yaa ngi biir liggéey bi tey mel ne waxtu wi xaw naa gàttaloo sëñ Souleymane. waaw soññee yi mu indi daal mooy maanaam moom képp koo xam ne moom ab murit nga nga ñëw jàpp si liggéey bi ñi ànd ko doxanoo ko yëkkate noo tëral noo nañu ñëpp sëñ Tuubaa ñu boole ak xasida yi ndax loolu xasida yi rek maanaam bu too xasida yi kenn du fi dajee te maanaam xasida yi mooy lëkkal ñu ñëpp dañ bokk sëñ Tuubaa kon nag ñëpp dañ doon benn jëm liggéey sëñ Tuubaa bis moom li ma gis moom maanaam mooy lépp tawfeex la waa lépp daal taw la xéewal la moo ñu dajee ñëpp benn lan yàlla na suñu Tuubaa doole dimbale dimbale mboolem jullit képp ku fi teew ak képp ku fi teewut aajo joo am yàlla suñu Tuubaa fajal yàlla suñu Tuubaa faj aajo yëpp nam ñun moom la lañ yaakaar luñ soxla moom lañ koy laaj waaw te gis nañ tamit maanaam lii moom wax dëgg yàlla li nga si gis faj aajo bu baax waaw jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf mbokk yi kon xam naa ñu doxaat ba ci biir rek incha allah laa kon mbokk yi comme ni ngeen ko baaxoo ànd ak ñun si suwaak léegi rek kon ñoo ngi toog ak euh, Baye Ablaye Jonn ak ki nga xam mooy di Baye Makan Cissé wax dëgg yàlla ñoom it di ay suñuy kilifa di suñuy jëwriñ wax dëgg yàlla jógee Touba Bergamo teew si ci bisu xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Touba Milan ci édition 2017 bi nekk fukk ak ñett bi. kon Baye Ablaye gannaaw bu la nuyoo siyaar leen rek wax dëgg yàlla di am mbégte bu baax a baax ci suñu borom ni mu mayoon daa ñu fekk ko fekkaat ko ren. ñu ñaani ñu yag ko fek at yu bëri loolu yàgg koo te ñu am ci ngërëmu sëriñ bi di ñaanal tamit sëriñ Sidi Muxtaar yag fi lool te wér ak njaboot sëriñ ak yëpp ak dong ci sëriñ tuba barke maam see bay xasida yi ah, gannaaw loolu rek Baye Ablaye mi melne bis yag nga cee teew yalla def tawfiq it ren ñu talaat ko fekkaat ko jamm wax dëgg yalla kon yan yeg yeg nga ci am rek Baye Ablaye ci bis bi ak ni nga xam jot nga ko fe gis wax dëgg yalla baag ci suba ak ba fi ñu waxee ni Baye Ablaye ci bis bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ ginnaaw noyo bi ak euh, ziar bi noo ngi am mbeggite ci teewewaat bés bi ndax euh, bu ma juumul bés bi yaakaar naa ne lu war mot fukki at ak nangam noo koy teewe waaye bés bi ni mu mel ku fi teewul rek mënuñu la ko misaal ndax àgg na ci dimension boo xamante ne nii képp ku lu baax ñor demaa jalale murit waaye képp ku lu baax ñor boo gisee bés bi war nga xam ne am na am na borom boroom te def na ci loxoom. nun daal amuñu lu mbég mbeggite tey ñaan suñu borom ñi ko taxawal suñu borom guddal seeni fan te ñu daj ci ngërëmal sëñ Tuubaa ci barke yoon barke sëñ Tuubaa ndax bés bii day li wérte woor mooy bés yi sëñ Tuubaa safoo ak yi bëgg yi sëñ Tuubaa di bëgg bés bi ci la bokk moom ndax sëñ Tuubaa daa bëggul lu dul xasida yi te xasida yi ni ñu ko defee rawatina bésub tey bii nga xamante ne dañoo ber góor ñi ber jigéen ñi ab saal ber jaaykat yi amul benn ruube ku bëgg a déglu xasida yaa ngi déglu xasida ku bëgg a jàng yaa ngi jàng ku ku bëgg a yor sa kurus yaa ngi góor kon lu mënul di sant yàlla te di leen sant di leen ñaanal it yéen ñiy taxawu bés bi suñu borom kattanal leen ba ngeen am ci lu kawe ñu seen jor te bokk ak julit yëpp bokk ak taalibe yëpp ci barke Serigne Touba di ñaanal Serigne Sidi Mokhtar min waroon a jékki suñu borom yàggal ko fi te weral ko di ci teg suñu jawriñ muy Serigne Cheikh Jëmm Fall noo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ba liggéey bi sëñ Seydi Moxtaar teg ci loxoom mu àggale ko bu naalaat yeneen bu àggale ko ci barke yeneen bi barke sëriñ Tuubaa barke Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sëñ Mbàkke sant nañu bu baax baax jërëjëf Baye Ablaye kon Baye Makan rek gannaaw bu nuyoo baax ziarar yow tamit ci bis bi comme ni ma wax ci Baye Ablaye rek wax dëgg yàlla yàgg nañoo bokk di teewe bis bi wax dëgg yàlla di sàkku ngërëmu sëriñ bi di ñaan ñu am ko ci li mu waxoon ne wax di awaayi san daama fii xidma loolu maaraama yàlla nañ ci bokk ci barkeb Serigne Touba bari xasida yi kon Baye Makan yewit yan cadre rek nga meuna andi ci bis bi ak yan soñe rek yo xamne jombul dang ko ci meuna ndax euh, bis mom bo ci yagge teew du ñàkk xeyna nga am ci ay jangat ak ay gis-gis ak xeyna ay soñe yo xamne dang ko ci meuna a ngir mbok yi nga xamne ñi ngi ci ak ñi xamne jombul ñi ngi ci ñi ngi koy bayyi xel xeyna ci aduna bi fepp fu meun di nek Baye Makan wa bisimilah rahmaani rahim barke Serigne Touba ak Cheikh rafal ñoo ngi nuyu manam bokki taalibe yi fi teew yep ak bokk julit yep di ñaanal ñepp jàmm ak fandu door ak xewal di la ñaanal yow mi indi fi micro bi bañ mëna jokk ak bokki talibé yépp di la ñaanal yalla nang fi yàgg tew teew ko fi indi ci barke sin Tuubaa Saara rafal ah ñi wax ne rek manam bis bi bisub julit yépp la bisub talibé yépp la li mom moy woné ni rek manam yoonu murit ci kanam rek la jëm ndax ko fokk fi waaw bañ fi door ñew ci rew mi li xalaatuñu ko won buñ démé ba mën taxawal li kon ak cant rek la lepp ñu koy ñaanal rek maanaam bokki taalibe yi maanaam ñëpp daal gën a jàpp ci bis bi gën a yokk gën a jëm kanam barke suñu Tuubaa Cheikh Rafal xam naa nag ñun danoo mënewul wax waaye nag daañ jéem ñu ngi jéeglu ci kàddu yi dëng yi daal waaw ñi ñaanal daal maanaam bokki taalibe yëpp rek yàlla nañ fi yàgg a teew te yàgg fee ñëw ci barke suñu Tuubaa Cheikh Rafal di ñaanal Cheikh Sidi yàlla na yàgg te boole ko wér di ñaanal suñu Cheikh Jëmm Fall yàlla na fi yàgg te boole ko wér ak borom Bawol Fall ñu sunu sëriñ di ñaal bokk taalib yëpp di ñaan bokk jullit yëpp barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall suñ xol na guy ñu ngi jégalu ci kàddu yi nag bu dëngee ndax danoo mënewul wax waa lii danoo bett lool lool lool lool mënewuñu wax jërëjëf ku dégg laa ñu sax xam ne mënewuñu wax ñu ngi sant bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Baye Makan jërëjëf Baye Abdoulaye Dione kon mbokk yi rek euh, ba tey kon ñu duggaat si biir rek dajeeg mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ngi ci bis bi di ko dund ngir am ak ñoom yeneen laaj yoo xam ne dañuy biir bi incha allah taala jërë ngeen rek ba tey kon ñoo ngi ci biir bi comme ni ñu ko waxoon sànq rek ci bisu xasida Touba Italie ci ba tey ñu taxawal ak sëñ Ablaye Ngom bokk ci jëwriñi liggéey bi wax dëgg yàlla fii Touba Milano sëñ Ablaye ñoo nuyu baax di la ziar rek bi yow naka ko dundee ak yan yëg-yëg nga ci am sëñ Ablaye ci bisu xasida bi asalaamaaleykum wa rahmatulaay barke sëñ Tuubaa waaw ah, bis bi de moom wax xam ñu sant yàlla yàlla baax wax dëgg yàlla ndax boobu le ba mu commencé ni ñu ko yaakaar rek ni na ko doxee muy liggéey sëñ Tuubaa mooy jàngal xoolaan jàng xasee ne ko suñu diglee ak bendel loolu ci leen nekk da wax daal gis nañ daal gën a sant ndax at mën a gis nañ day gën jëm kanam day gën yokk ah nii naan liggéey ginnaaw tànkeel nu jëm loolu lii ko firndeel wax dëgg yàlla ndax at mu jot dana benn saal tey sunu borom yàlla dogal na ñetti saal loolu nag ñetti saal te daa fees dell waaw boo doon lu jërë sant yàlla la waaw nan sant yàlla xam ne daal lii daal moom moo léegi suñu Tuubaa loolu moo fi des xasida yi alxuraan ji daa alxuraan alxuraan suñu Tuubaa xasida yi xasida noonu tax ni ñaan daal kat na suñ kat na yàlla daraja suñu Tuubaa barke xasida yi xam tax ñoo ko def ñu koy def at te gën koo man da day jeg ngërëm suñu Tuubaa waaw loolu daal moom gis naa ko ci wax dëgg yàlla fi mu toll gisuñ ci benn gàllankoor daal wax dëgg yàlla waaw ñu ngi sant yàlla baax a baax waaw ndax Dalla xam nañ nak lo sax la dungo wax ndax mom nit ki mom sa bu lu bax da koy jóg jàng wax jàng rek bernel mom jàpp na lu bax rek ngay sentu daal leneen gàllankoor du jam mo dara ñu ngi sant yalla di ko sant Sëriñ Tuubaa baax a baax di ñaan dal kat Sëriñ Tuubaa yalla Sëriñ Tuubaa dolel ban gën ko man ay ati at at ban yalla nañ ci magge dal yalla nañ ci magge bar Sëriñ Tuubaa jere ngeen jëf sant nañ baax a baax waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye ziar bu baax baax rek xamna kon yeen kaddi soñe ngay andi ci mbokk yi ñi ngi ci bir bis bi ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla guddeeg bëccëg ñi ngi daw ak dikk dikk ak ñi am nañ pas tàbbi ci biir liggéey bi yan soññ rek ngeen soññ sëñ Abdoulaye sa kàddu mujj ah, ñu may commencé mooy ñi ci nekk nan di sax bi lay mu diine fekk ñu ngi am bakkan di nooy di tal nañ ci nekk ba yooyu ñu dee képp ku ci nekkutu nit na ñëw xam ne lii mooy liggéey suñu Tuubaa leneen lu waaye nekkit da ngay nax sa bopp jàng alxuraan jàng xasida berndeel mooy moom la suñu Tuubaa digle te lépp lu suñu borom di tere nga bàyyi ko Sëñ Tuubaa moom diglu lu muy digle moo la yàlla digle lu muy tere moo la yàlla tere waaw ku bëgg am ngërëm Sëñ Tuubaa da nga ne ci loole waaw ñi ñi ci doog a ñëw it moom nañ leen soññ yu gën a góor rek takk ndigli xam ne nag liggéey Sëñ Tuubaa yombut di nga dégg lu ne waaye teew da ngay jàpp rek bañ a bàyyi bu yàggee di nga gis njariñ li ndax wax dëgg ñun ñun ñi ban ciy dugg wax dëgg yàlla dogoon na booru sax xam naa ay xale nan waaye nag dinañ ci loo xam ne buñ sañeen buñ juddoo ba xamee nañ ciy nekk ndax li naan réew mi ñoo xam ne wax dëgg yàlla dafa bari ay mbedd ñu bëgg a baax da ngay ñëw fii ñu bëgg a mel ne da nga dem feneen waaye jàpp na ne fii ku topp ci ñii ne ci ñii bu yàggee da nga da nga da nga baax waaw. moo tax daal soo yëpp daal mooy ñu gën a góorgóorlu takkuwaay boole xoolee boole lépp ngir liggéey Sëñ Tuubaa xam ne Sëñ Tuubaa rek moo jëre liggéeyal ndax leen lu waay def da ngay nax sa bopp rek waaw. ah tout temps ki li ñu wax rek moo war de yàlla ñu leen jëma wax ma ci liggéey Sëñ Tuubaa te liggéey Sëñ Tuubaa mooy jàmm mooy lépp ndax nit nit mënut am lu gën loolu waaw soo ñëwee daal mooy loolu ñu gën a góorgóorlu tënkuwaat gën a jàppaat xam ne rek nag moom adduna mi lii rek moo fi ne lay néew fi na leneen lu ma lu ma waxoon leneen lu defit dañuy nax suñu bopp rek wax dëgg yàlla waaw ndax képp ku ñu ne gis nga njariñ bi ah ndax ñi ñëw it xam naa dañoo dégg wala suñ tuwaa moo leen baaxee ngir ñu bëgg ñuy bokk ci dégg suñ tuwaa moo tax ñëw waaw loolu daal soññee daal mooy lool waaw jërëjëf la ziar di la santaat baax xam naa it mel na yéen a ngi si bi te baat bi mel na ci woon a jàpp ba mu xaw a mel ne xaw a sant Diop waaye nag lépp tawfeex sëriñ bi rek la waaw jërëjëf waaw man bu sama baat dee rek jërëjëf jërëjëf sëñ kon ba tey rek xam naa kon ñoo ngi tax mbokk taalibe ci bis bi rek ba tey ah, ku mel si Aïdara Wane mi ngi nii suñu wet ak euh, beneen mbokk taal boo xam ne mooy wax dëgg yàlla teew nañ ci bis bi wax dëgg yàlla kon sëñ Aïdara gis na ne suba ba léegi tamit yéen yéen ngi ci côté commission culturelle ne ci séddale alxuraan ji ak xasida yi wax dëgg yàlla di ci taxawee depuis si suba ba léegi nii wax dëgg yàlla noppaloon benn yoon xam naa kon naka ngeen dundee bis bi rek rawatina ñax ni yéen wàllu culturel sëñ Aïdara waaw bi moom wax dëgg yàlla ñoo ngi ci jàpp bu baax a baax ci wàllu alxuraan ci wàllu xasida yi mbooloo mi ñëpp moo wax dëgg yàlla ba xëyee ba léegi ñoo ngi jàng alxuraan ak xasida xam ne mooy bis bis li ko waral lépp la moo tax bañ xëyee ba ba léegi ñu ngi ci alxuraan ji ñu ngi ci xasida yi noppalu benn yoon waaw xanaa bu waxtu julli ji rek lay noppalu loolu daal lañ amoon ñun moom lañ yoroon ci wàllu bis bi wax dëgg moom boobu ba léegi nit ñi moom ñu ngi jàng alxuraan bu baax a baax a baax ñu ngi jàng xasida bu baax a baax antek positif nag bu baax a baax a baax bañ xëyee ba léegi ñu ngi jàng jàng nañ fi ay nangami kaamil xam nga ma lim bi nag waaye fee ngoon incha allah dinañ wax limu kaamil waaye bañ xëyee ba daal ngeen xam ne moom ñu ngi ci kaamil yi ñu ngi ci alxuraan ci diiwaan ci wàllu yëpp waaw bisimilah ak sa jërëjëf sëriñ Aydara ñooy sant baax kon ki doon àddu sànq rek mooy sëriñ Aydara wan wax dëgg yàlla nekk Touba Bergamo waaye tamit nekk tamit ci côté commission culturelle bu bisu xasida Touba Italie sa jërëjëf sëñ Aidara kon ba tey rek ñoo taal ak ne wax dëgg yàlla moom mooy jëwriñu commission am ci bi nga xam ne dañ koo woote xasida sëriñ Touba yi doon ak ñett ñu koy taxawee ren ji waaw jërëjëf sëñ Mbacke Mboy daan sawar a tontu lool si laaj bi nga xam ne laaj nañ ko ndax dafa nekk loo xam ne si la yëngatu ñun suñu itte yëpp liggéey Sëriñ Tuubaa la waaye jaare ko nag si eh, commission culturelle mooy jàngale alxuraan ak xasida waaye bésu mel ni bu fi ñëwee toujours ah, suñu xol day sedd ndax dañuy yëg ne ñu ngi dund Sëriñ Tuubaa ndax dama naan yombu si eh, si étal gi yëpp maanaam benn bés boo xam da toog suba ngoon di jàng alxuraan te doo yëg coono. la ko war mooy da ngay dem ba nga yëg alaa waxta xibaar dama am neexaayu jàmm yàlla gi nga yëg sa sa sa xol sa ruur si dund moo tax ne yow maanaam dutoo dem ba yëkkat ne yaa ngi si coono xëy na ki nga wala ki dund wala ko àggu si tolluwaay bi bu la gisee nga daan ñii li nekk ab la ndax ku mën a xëy suba ba ngoon maanaam ñëw fi 10 heures si ba 7 heures du matin si dimanche bi nga toog loolu koo xool si image bi nii danaan dafa métti waaye kii dund Serigne Touba di yëg Serigne Touba doo ko yëg. ndax foofu damaa jàppoon maanaam jëmmi doomu aadama dafay nekk waaye alaa wata xibaar yi neexaa jàmm yàlla gi waaye dama jàpp ne sëriñ bi day dugal si yow loo xamante maanaam euh, li ñu wax maanaam ñaare euh, kattanu malaayka ba ba xam ne yow maanaam duutoo yëg li ngay def kon moo tax maanaam bés la boo xamante ni koo xamut xamoo ko waaye koo xas ñam mënoo koo bàyyi te dem naa ba jàpp na maanaam fi mu bés bi mënutul jàkk si murid yi maanaam fii si état li moom bés ndax dafa bokk si dund ak yi te boo xoolee dama naan na sant yàlla baax a baax li ñu sante suñu borom sax daal moo dinañ adduna bi yëpp ba sa Touba gi nga xam ne fa la yoonu Murid euh, sosoo muy capital ba ña nga fay woote bi su xasida te man li ci li ma xam si état gi la ko njëkk gisee bi su xasida fi la njëkk taxawee waaye dem na ba adduna bi yëpp diñu si roy loolu nag ci li ñu xam moo dina fi fi waaye taxawale bi su xasida rek waaye taal suñu borom la jox seen wàll ndax ñoo def lu baax ñu ñu roy leen si boo xoolee fépp si adduna am na si léegi te boo xoolee euh, ñi doon maam euh, sonal sëriñ bi maanaam ñi fi jële woon si ay labbe rom gi la leen jëlee woon yóbbu leen ngir ñu mën a yenn bu daxaa sëriñ bi ñu dem ba rom googu wala réew mu état mooma ñu njëkk fee taxawal guddi xasida ba dem ba law si àdduna woo dañu xam ne loolu liggéeyub sëriñ Tuubaa la te gis nañ si maanaam ak defar defar gi mooy ñu ñu nekk si commission culturelle di liggéey si daw gis nañ ne xasida yi ni mu xëccee ndaw ñi saasa beneen dund bi nekkoon ndax ko xam réew mi ay jamono xale yi li ñu xamoon mooy ne ngoon ñu dem ci yenn barab yi duñ bëgg sax di ko tudd waaye barab yi mooy majaal saxaawa waaye bi xam ne kuréel xasida mi nga tàmbalee dugg si réew mi liggéey bi mu def gis nañ ne maanam ndaw yi récupéré na leen duggoo leen si xasi duggoo leen si kuréel yi ba ndaw ñi de boo si gisee am na ñoo xam ne sax boo leen gisee maanaam. jëmmi tu tànk leen yor waaye boo xoolee seen jëmbi ay kilifa leen ndax la tolloo tàggat tàggatu ko maanaam dama naan xasiide moo si gën a gaaw xasiide moo gën a gaaw si am na si waajur yoo xam ñu ngi fi li ma mën a waat moo dina bu duggoon a xasiide Sëriñ Tuubaa ñoom seen doom yi dañ ko ñàkk. leen protesté leen mooy xasiide Sëriñ Tuubaa yi yi kuréel yi kon nag liggéey la boo xamante ni maam pour euh, yaatal lislaam waaye waaye tiit ñaboot Sëriñ Tuubaa gi dara gënu si gën a gaaw xasiide yi te fii ma nekk gox nekk muy wéranto xam nañ ko ñun dara beneen gox kasaal ko ko noonu kon maanaam euh, liggéey bu xasida yi moom si biir état gi moom wala diaspora bi ñu ngi siy dund xam nañ ko xëy na mbir ñaare moo am gàllankoor si nit ko xamul mbir ma nit na boo nekkee am na koo xam ne bu la gisee nekk si mbir te moom mbir moo ne xamu ko mën naa indi ak gàllankoor fekk da koo xamut waaye kun jox na la kaay sàmm yow toujours li ngay saytu mooy a gaaw si sàmm li maanaam fexe ba ndaw yi intégré du xasida Sëriñ Tuubaa bi mos gën a gaaw lu moom xam na ko si euh, liggéey bi te loolu boo xoolee maam da nga gis ndaw loo xam ne bi mu dugg si xasida yi maam daaw jàng alxuraan daawut jàpp daawut julli waaye bi mu duggee si xasida yi xasida yi na ko léegi fu waxtu am jàpp julli jéem naa xam ay farataam ba lu bëree bëri mi ngay xam man mi di wax yow am na groupe yu bëri yoo xam ne fi mu ne maam groupe bu nekk te danaa fa jàll la ay dars yu jëm si wàllu xam-xam te groupe bobu ña sa ñepp ñëpp tënku si ndaw yeengu ci xasida yi te biñ tënk biñ tënwee ba tënku si xasida yi ci doog dogu a am loola kon dañu xam manam manam euh xasida yi baas la bo xam ni manam arme la bo xam serigne bi da ko defaron ngir liggéey société bi manam dama japp ne manam xasida yi ay taalibe yo xam yo dañoo war a liggéey si taalibe suñu tuwaay dañoo ñoom ay taalibe serigne touba la waye dañuy liggéey ci taalibe serigne touba yi motax kon dal xamna naa ne euh, li may wax toujours rek di nga sañ maa nak lu ci ma rek ñu dal di tënkuwaat si liggéey sëriñ waye waaye war ci ñaagale serigne touba bi rek tekk ci sunna ndax man talabal wasoo le jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli buñ bëggee àgg fa sunu subhanahu wa taala rek nan ngooy si sunna si alayhi salaatu wasalaam kon daa xam naa ne kaddu yi dañ koy tënk ne ndax euh, a wax bés da waaye euh, foofu rek di leen sant bu baax wax si liggéey yi xam ne euh, yéen kay koy def ndax yu bëri ñi ngi koy suivre xam naa ne duñu xamante waa yu bëri maa ngi koy suivre di ko ngeen xam ne liggéey bi suñu tuwaa moom mm, moo moo moo demee noonu ndax mën ngaa nekk fii di jàngal koo xam ma nga États-Unis wala di jàngal koo xam ne ma nga Sénégal suñu borom day fay yiw woo xam ne yëgoo ko moo tax boo si rek nga gën a góorgóor te xam ne moom sëriñ moo yor ay tànk ñu ngi jégal baax a baax waaxara daawaana alhamdulilahi rabbil kon ki doon àddu sànq rek mooy sëriñ Thierno Sakho moom mi nga xam ne moom moo jiite commission culturelle bu Touba Veneto wax yaa wax ji wax wax fi tamit yaa wax ju am solo lool joo ne wax dëgg yàlla ku ne mën na koo dégg wax di yàlla ay leer la nga ci waaye ay soññeet mi mi ngi ci wax ji kon sëñ Thierno ñooy sant baax di la gërëm rek xam naa ne mel na yitte yi xaw naa bari tey leen xaar bëri na ndax kiit ba tey da ngeen tàbbaa ci comme jogitér bi su xas day kon wax ñooy sant baax di la gërëm wax dëgg yàlla jërëjëf bisimilah kon mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Touba Monde bi TV lëkkaloo ak rajo online Touba Monde bi comme niñ ko baaxoo andi ñu xëyee ba tey rek fii ci bisu fii ci Italie ci Milan ci bisu xasida bi nga xam moom la ñu amal nekk fukki yoon ak ñett ñu koy amal ci Bustarcino ci Malpensaferra ba tey rek wala ñu ngi taxaw kenn ci jëwriñi liggéey bi wax dëgg yàlla nekk suñu kilifa wax dëgg yàlla ginnaaw bu ñu nuyoo baax ziyaara rek. dila masa masawu coone mbégte yi nga xam ne wax dëgg bin depuis bi ñu jàppee bis beeg léegi yéen a ngi ci guddeeg ba di ci jokkoo ak daw ak dikk wax dëgg yàlla muy coone mbégte coone bànneex di ñaanul yàlla lépp rek doon tawfiix ak euh, maam bari day yi wax dëgg yàlla ñu lay laaj rek kii jëriñ yan yëg-yëg nga am ci bi nga xam ne wax dëgg ñoo ngi koy bokk di andu wax dëgg yàlla at yëpp ñu koy bokk teewee kon yëg-yëg yi ñu lay laaj rek mooy bis bi nga ko dundee mm-hmm. ak yan yëg nga ci am ak nan nga gisee bis bi waaw salaamaaleykum waaw mm, sant sëñ rek gis mom ginaaw ginaaw li nga xamante mom moom moy moy mooy warteef gi manam mu war ñu ñu koy def tay dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa tawfexé ndax suñu borom da dogol sëñ Sidi makhtar yalla na fa yàgg loolu te wér joxe ci ñu wàccee alquran alquranul karim te naka jekk sax mom ñun non lañ ko daan doxale manam kon dafa fekk moy man li ma mëna wat mom moom te man ko séré moy ñaanu gu sëñ touba nangula te it bis bi day bis boo xamante bii nii man dama koo jàppe ne fajuk aajo lay doon ci ñun te lu wér la li may wax ndax dama am naa ci takk yàlla seere na yonte bi saa boo fi jógee sa kër di ñëw te sa pas sa sell maanaam aniyatu saalih am yéene ju sell suñ borom dogalee nga yegg si fi te sellal nekkin bi parce que jàpp naa ci sama xel te lu wér la loo ci ñaan suñ borom dana ko nangu ndax dara dara dara da koo raxut lu dul alxuraan ak xasida istixfaar salaatu ala nabi te it ñun bu loolu lépp jàllee dama jàpp ne dafa dañoo waroon maanaam bu ñu ko euh, jot gi mayoon bis bu set nekk bis bu xasida ndax euh, waxuma dara waaye daje fi rek gisante saafonte nuyonte loolu rek dafa jara dafa jaroon déplacé wu fu ne waaye ñun moom ay dañuy ay dongo yu xeebu maanaam baatu jëwriñ boobu nga wax daa kawe ci ñun ak Sëñ Tuubaa bokk nañ ci dongo Sëñ Tuubaa yi gën a xeebu euh, ci ci ci ñëpp waaye wax dëgg yàlla sant rek ak mbégte maanaam mbégte sax moo jàpp ba xam ñu ñuy wax waaye ñu ngi naan daal képp koo xam suñu borom dogal na nga déplacé wu ñëw fi ak ko amoon yéene ñëw te ñëwuloo yàlla na suñu borom fay ay ay ko ñaan bu may ko tey da koy may sax njëkk mu koy ñaan yàlla nañu jiitu ci suñu soxla jiitu ñu ci suñu bëgg-bëgg ba fajal ñu ko barke président yi ñu ngi sant bu baax te gërëm ñu ngi tuub nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> jërëjëf sëñ bi sant nañ baax ci ci leeral gi wax dëgg yàlla lu mënul ñàkk la ndax it eh, yéen ay kilifa ngeen tey wax dëgg seen kàddu am ñoom ko déggee wax dëgg yàlla mën nañ cee jële ay bind wax dëgg yàlla ak i soññ yu am solo jërëjëf xam naa kon rek ñu lay sant baax di la gërëm jërëjëf jërëjëf ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibé yi comme niñ ko ànde woon yéen subaak léegi rek ci Touba Monde bi TV lëkkaloo ak rajo Xassida online ci bisu Xassida Touba taalibé yi nga xam moom lañu amal ren nekk fukki yoon ak ñett bi ñu koy amal ñu taxaw ak nag wax dëgg yàlla kenn si kilifa yi di Serigne Dame nekk fële ca Touba rafet na muy fayan saa wax dëgg yàlla teew ci bis bi wax dëgg yàlla sëñ Dame gannaaw bu nuyu baax siyaar di leen masawu coono yi mbégte yi ak coono yi bànneex yi wax dëgg yàlla bis bi yàlla def daaw ñu bokkoon ko ànd wax dëgg yàlla rent mi ñu àndaat ko ñu ñaam suñ borom yàggal ko fekkeloo tañ tal ko ci barke suñu bari xasida yi te lépp ñu mu dëppoo bëgg-bëggu sëriñ bi te ñaam ci ngërëmam di ñaan di mu yàlla baax suñ sëñ taan mbàkke mu yàgg loolu tëwér ak njabootu suñ tubaab yëpp nag ak mboolem amul suñ naan salam yëpp suñ daam yéen ñi nga bis bi nga xam ne tey ñu ngi ko am te ñu yàgg ko ànd te ren nekk fukkeenu ak ñett ñu koy amal suñ daam waaw onze billahi mina seytaan rajim bar sëñ Tuubaa bark maam Cheikh Rahima Fall ñoo ngi sëñ euh, sëñ Mbàkke ñoo ngi ziar bu wér a wér di ñaan sëñ Sidi Moxtaar mu yàgg fi lool te ànd ak wér bark sëñ Tuubaa Cheikh Ibra ah, xanaa bis bi kay liñ ci am mooy mbégte rek lii moom ku mu doyu dara du la doy ndax wax de yalla bis bis bo xamantene ni alquran khasida di jang khasida suba ba ngon 24 heures sur 24 lolou kum doy kenn du ray ndax te nit lu yag rek dañoo wax lu yag rek deug la ndax fukki at ak ñett ti ren ñukoy def a and ko suñu jëwriñ yi ñu demé ne seigne Sam job seigne ñaan job ak jëwriñ yi nga xamantene ño ngank ŋànk bi yepp ñu di len ñaanal ñu yag fi lolou te and ko wér guddu fan gu and ko wér barke maam Cheikh ramval li nga lay xamal daal mooy bis bi moom ah, mbégte liñ ci am moom faa wax na suñ njort ndax wax dëgg yàlla suñu yaram daw na xasida yi ñu fi dégg ci suba ba ngoon dañoo fekk sax ñu xaw a mel na ku xaw a sopp waaye ah, lépp ci tawfeex sëñ tubaa rek la ñun daal ñi ngi ñaan ci bark sëñ Tuubaa ak Cheikh képp koo xam te ni teew na fi ñuy ñaan ci barke sëñ Tuubaa ak Cheikh nga gudd fan ànd ko wér ba jekku ndigali sëriñ tubaa yi xam na loo xamante ne duñ comme da ngeen di wax Touba monde bi Touba monde bi ku ko wax da wax sama yaram dafa daw bàyyi naar ngir ñoo ko àndoon heure bi daaw Ah, ren ji moom ah, yàlla def mu jiite yi waaye ñu ngi ko ñaanal ci barke sëñ Tuubaa ak Seex Ibra ah, mu nekk yàlla na ko fa barkeb xasida yi fekk ndax bàyyi naa dafa nekkoon koo xam ne kenn la woon ci ñun ndax liggéey sëñ Tuubaa yi ni mu ko taxee woon kenn ku nekk xam ne ko kenn ku nekk xam na ne tey jii manqué na fi ndax wax dëgg yàlla boo xoole nga xamante ne nii wax dëgg yàlla laxasaay gi rek di joxe xasida yi nga xam ne kooku manqué nañu trop wax dëgg yàlla waaye nag yàlla moom mooy def li ko neex parce que moone kul nafsin saay mauti mawti bakkan bu mos dund da nga mos de kon baynar ñi nga ñaan suuf sedd sa kaw ak seigne touba ci ay jërëjëf seigne dam jërëjëf sam nañ bu baax jërëjëf ci cadeau yi ñu amine baax di guddal di doolu ñaan baax ñun timi seigne nar mom nga wax deug yalla suñu bam doolu ko tawfiq ak yeen maana pam nek bari xess de kon sant nañ ñëpp gërëm ñëpp kon sëñ daam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi ba tey rek ñoo ngi ci biir salle bi fi ci Milan ci bisu xess de bi ñu taxaw rek ak kenn ci kilifa liggéey bi di Serigne Saliou Ndiaye Serigne Saliou gannaaw bu ñu nee baax siyaar la boobaak léegi ñu ngi ci wër ci mbokk taal bi di leen laaj rek yéeg yi ñu am bis bi ak it gis-gis yi am nañ ko ci ak soññe yi nga xam ne dañ ko ci mën a indi ñeel mbokk yi nga xam ne biir liggéey bi ak ñi nga xam ne sax dañ ci bëgg a tàbbi jombul Serigne Saliou gannaaw bu ñu nee baax siyaar rek euh, yéen ngi ci biir liggéey bi rawatina yéen ñi yéen ci côté commission culturelle bi ci alquran ji ak ci diiwaan yi ba sax ci prestation yi nga xam ne moo nekk suñu gannaaw nii kuréel di yëkkati di àddu noonu sëñ Saliou ndax mën nañoo xam bis bi fan ngeen tool fi nekk nii ak it euh, yan yëg-yëg nga ñu mën a indi bis bi ci ren ji nga mooy fukki yoon ak ñett bi sëñ Saliou. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, sëñ Mbacke Ndiaye ñoo ngi lay nuyu baax di la ziara te di la jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci liggéeyal Seexul Xadim di nuyu sëñ Aliou ñoom it ñoo ngi koy nuyu baax ak mbokki taalib yëpp rek waaw bis bi day day bis boo xam ne bis bu màgg la bis bu la ñu am ci yëg-yëg bu kawe kawe boo xam ne bu jéggi dayoo la ndax euh, day bis boo xam ne lépp suñu borom subhanahu wa taala la ndax bu ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci njàngum alxuraan mi waaye ñoo ngi ci njàngum xasida yi waaye nit ñaa ngi yor seen kurus di def astaghfirullah ñi ngi def salaatu bi lépp ñu jëme rek ci jaamu yàlla goo xam ne andut ak ngisal andut ak dara lu dul di dàkk nga bëgg Sëriñ Tuubaa loolu nag liñ ci jàngate mooy nekkate xasida yi mooy li nga xam ne mooy liggéey mag bi xam ne moo des fii ci jamono ji ci bitim réew ñu gis ne dimbalu ñu dimbalu joo xamante ne bi liñ ci man a jàngatee bari na lool ci bis bi ndax commission culturelle mi ngi ciy liggéey liggéey bu rëy ci defar ci ndaw ñi defar ci mag ñi it nag ndax kenn ku fi ñëwoon am at da nga yëg ci sa bopp ak yokkute goo xam ne yëgoo ko woon da nga yëg ci ak jaamu yàlla goo xam ne mosoo koo yëg da nga yëg ak ragal goo xam ne mosoo koo yëg te lépp li ko waral mooy xaside rek moo ko waral waaye mu am benn liggéey boo xam ne xaside yi mi ngi koy def ci wax li ñuy wax na wartax si moo bi jame laa jameyaan wala tafaraqu mooy na ngeen jàpp ci bu ma jàppaloo ak yi lu wax ne innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum loolu dañ koo jàngat bu bare bare ci ci bis bi ndax bu ñu xoolee ñi fi daje mbooleem li ñuy wax naan Europe ñëpp ak diaspora monde bi ñëpp dañ fa daje te la ci gënee mooy kenn invité wul kenn kenn woowul kenn nga xam ne mbooleem France Allemagne ba Angleterre ba Canada ba Espagne waxuma la Italie ñëpp dañu fa daje te la gën yee mooy kenn invité wul kenn kenn woowul kenn lakka waral mooy day mbir moo xam ne day diine kese di liggéey Sëriñ Tuubaa boo xam ne bu mu bu mu nangol boppam la loolu moo tax nag kenn ku nekk am yëg-yëg ci sa bopp ba mu boole leen ñu doon jënd jëmm waaye la ci gën a yéem mooy bis bi boo ñëwee doo xam xàmmee kii ak kële ak kële la ko war rek mooy ñëpp benn jublaay lañ am muy xasida de rek moo leen moo moo moo leen ñor moo tax loo xam ne bu ñu bëggoon defar àndandoo bi muy waata si moo jooju li ci gën a gaaw mooy bis xasida moo ci gën a gaaw ndax da jàpp ne li ab daayira la boo xam ne dafa beru fële waaye déedéet du lu beru ndax damay yéemu ndax ñeneen ñi dañu def ay dayra ñeneen ñi kuréel yi deco nañ seen dabab xaajoo nañ leen fekkee ne xamuñu li xew waaye xaajowut ndax ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci kuréel yi ñoo jiite ci liggéey yi nga xam ne mooy liggéey kees ci Tuubaa yi waaye boo ñoo ko jiite nga xam ne lañ fay def kuréelu xasida yi ca wam kër Sëñ Tuubaa yi ñoo koy dundal waaye jëriñ yi nekk ci kuréel ñooy dundal li nga xam ne mooy daayira Sëñ Tuubaa yooyu mu doon lu yéeme loo xamante ne la ko wan mooy nit ñi xamuñu dëgg-dëgg nekk ci xasida yi mooy waral ne day mel ñaari groupe la ñaari communauté yoo xam ne bokkuñu fuñ jëm te la waral mooy bari gi ñu bari ak bennoo gi ñu bennoo ak takkuñ takku yéem na leen ba tax na bari na loo xam yaa ngi ko ci dégg te la ko war a mooy ñàkk xam ñëw ñëw ci biir te bu ñëwoon ci biir rek danañ xam ne xasida ci boppam mooy ki nga xam ne moo ñuy lëkkale buumu di suñu ko de tubaa ba nga xam ne ni mag ñu doon dundee ci ñaareem doon kenn boo ñëwee ci xasida noonu ngay dundee mboolem ñi fi nekk ñëpp benn say lañu wenn buum lañu genn kilifa lañu am muy loo xamante ne lu lu mat a jàngat la nga xam ne bu ñu sañoon tey dañ koy yaatal bu ñëpp di ñëw ci bis bi ndax bu fekkee bëgg na doon booloo ndax léegi rek lañ jóge fee ci communauté Tidiane yi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw nañ ànd ak seen comité ak seen ak seen ak seen yéene waaye indi addi ju bëree bëri ànd na ñun bis bi kon loolu bi tax na mooy suñ bëggoon noonu benn la jullit yi mën naa ne buntu ngi ni boo xam ne mën nañ cee boole bindal boole ñëpp ñi nga xam ne ñooy euh, communauté bi moo xam murid la moo xam Tidiane la waaye ba ci ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne xëy na leneen li ñu dund dañoo mujj xëccale ba boo fi ñëw na ñoom beneen dund la ñuy dund xam ne dalay wóor nañu xasida moo leen yóbbe loolu kon kon loolu suñ mbàkkee gis nañ ko mën ko jàngat ci guddi gi moo doon njëriñ loo xam ne wax dëgg yàlla buñu sañoon ñëpp ñëw ci bis bi xam li ne ci bis bi ndax njëriñu kese la loolu la li suñ bi waxoon ne sama xasida wala sama wala man sama boppam njëriñ laa joo xam amul ma ànduma ak lor waaye mooy bésu xasida njëriñ loo xam ne amul Eh, jërëjëf Baye Sall ñooy sant baax ci leer gox ci kàddu yooyu kon xam naa mbokk yi rek ñu duggaa ba ci biir incha allah daje yeneen kilifa ak yeneen jiw incha allah taala inew xaadimu nasaratura fi arnim li maaliki mursara inew mbokk yi ba tey rek ñoo ngi taxaw ak Serigne Khadim Ndiaye bu Touba Veneto mooy wax yàlla nekk kenn ci kilifa yi wala sax ci jëw yi nga xam ne ñooy taxawee bisu xasida yi wax Serigne Khadim ginnaaw bu ñu leen baax ziar la mu mel ne yéen moom yéen féetewoo sax yàlla li gën a am solo ci bis bi muy maanaam yor lépp lu jëm ci wàllu gamaatu bi nga xam ne fi la ñuy jàng di toog Serigne Khadim muy ñuy yëkkati xasida yi noonu kon yéen Serigne Khadim mu mel bis bi at yëpp daal ñoo koy ren doon fukki yoon ak ñett ñu koy taxawee wax at yëpp ñu koy ànd yan yëgee nga am bis bi ak yan copp ngis ne am ci ak yoo xam ne mën nga ko andi ci ay ndoone ak ay solle ak soññe yoo xam ne day jëm bi suñu xaadim waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa tubaa monde bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jox ñëpp seen wàccuwaay bu baax di bég bu baax di nuyu mbokki xaside yëpp rek bàyyiwuñu kenn di nuyu waa Touba Veneto yëpp xanaa di jéggulu rek kàddu gi bu dee xëy na jëwrin yi buñ ko xoolee euh, suñ kàddu bopp la ñuy wax comme ni ko euh, suñ Mbàkke waxee kon xam naa bis moom yëg-yëg biñ ci am mooy yëg ci rek weesuwuñ ko ci yëg ci sëriñ bi lool rek waaw di ñaan yàlla suñu borom bi subhaanahu wa mu fekkal ñu ko ak déwén bu baax a baax waaye liggéeyu gamaat bi boo xoolee ñi ngi ko commencé woon 2010 ba léegi bi biñ ko bi mu ñëwee Veneto boobu ba léegi ñu séddañu ñu séddañu ko ñu ciy bay sunu waar ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi boole kook li nga xam ne mooy mbirum gëtt bi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy wër ci mbokk taalibe yi di leen ko tuur ndax moom tamit daa bokk ci liggéey bi moo tax lool loolu daal moo fi moo fi sunu liggéey waaye rafetlu nañ taxawaay bi lool bu baax a baax xanaa bu ñuy am soññee bu ñuy soññe daal mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy jàng xaside yi ñi toog ci kuréel yi ñooñu daal lañ bëgg ñu gën a xamaat ñoom li ñu yore lu mu doon gën koo fonk bu baax surtout ci wàccaay yi nga xam ne buñ jugee ci bis bi ñu commencé ko waajal mu jëm ci addiye yi moo ci euh, ëpp am na ci farata lool ndax li yéwénal bis bi ci la bokk ñun ñi nga xam ne ñooy toog ci kuréel yi ñoo ci war a gën a farlu bu baax a baax waaw loolu daal xam naa ne daal bu ma doon soññee daal ci wet googu daal laay gën a soññee ak wàccaay déwén yi ci njàngum xasida mi itam ñu gën a waajalaat déwén incha allahu rabbi loolu daal la soññee bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom mu fekk ñu waaye bég nañ bég nañ ci lool waaw di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek mu defal ñu ay tawféex yu yaatu ci barkeb Seexul Xadim barkeb xasaayid yi asalaamaaleykum wa rahmatullah amiin jërëjëf sëñ Xaadim kon ki doon wax sànq mu sëñ Xaadim Jaw Touba Veneto ne si kuréel Touba Veneto waaye tamit bokk ci comité d'organisation ñooy saytu bisu xës Touba Italie kon sëñ Xaadim ñu sant baax di la gërëm jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme niñ ko ànde woon yéen subaak léegi rek euh, ci ay reportage yoo xam ne ñu ngi koy amal biir euh, salle bi fii ci Malpensa Fiera ci bisu bi nga xam ne moom la ñu amal doon fukkeelu yoon bi ak ñett ñu koy taxawee wax dëgg ñu toog nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa conservatoire ak ñi nga xam ne ba tey ñooy jëwriñi bisu xasida bi ci jëwriñ lañ bokk muy ku mel ne Serigne Saliou Ndiaye ak Serigne Mbacke Mbodj ak Serigne Mamadou Fall bu Touba Veneto ci Treviso gannaaw bu leen nuyoo baax siyaar leen di leen masawu coone mbégte yi ak coone bànneex yi wax dëgg yàlla at yëpp ñuy ànd bis bi yàlla def ren di ak ñett bi ñu koy ñu koy ñu koy taxawee Baye Mbacke mu mel ne yow yaa yore li nga xam ne mooy list bi nga xam ne ci la kuréel yi nekk ñoo wara war a taxaw tey fii jàng bégal mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñoo teew ci bis bi ndax mën nañ xam rek Baye bisu ren bi ak yi weesu woon yan coppiku ñoo am ci biir kuréel yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey jii nii nga fas yéene yëkkati xasida Sëñ Tuubaa yi Baye Mbacke tey jii asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw biñ leen ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel ci guddi tedd gi di ñaanal Cheikh Sidi Makhtar mu yàgg fi lool te wér yàgg ñoo jox ay ndigal ñu koy jëfe te ci tase ngërëmal Serigne Touba te li bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu ànd ko taalibe sëriñ Touba yëpp ci barke borom Touba sëñ Mbàkke fukki at ak ñett du benn fan du ñaari fan lii ñu tàmbali ko ci 2004 ba tey ñu nekk 2017 kon booy laaj ndax ak coppite am na ci. ak coppite gu màgg a màgg a màgg moo ci am wante nag coppe gi tamit dañ ci sant Serigne Touba mi nga xamante ne nii moom moo nu jagleel bis bii coppite gi li ci jiitu rek mooy kuréelu réew mi kese ñoo ko daan def te tey gis nañ ne kuréel yi ñu ngi jógee fépp ci biir Europe booy xool waa Touba Allemagne ñi ngi fi Touba France ñi ngi fi. waa Norvège ñi ngi fi délégation wu Canada ñi ngi fi kuréelu Espagne mi ngi fi Belgique ay jafe-jafe moo leen tee agsi am problème mu vol moo leen tee ñëw kon ñu ngi fi woon dañ dañ doon ànd ak ñun guddi ki tey ak nag ñi nga xam ne nii ñu leen de sant yéen waa Touba Monde bi ci liggéey bi ngeen di def mu mel na léegi du liggéey bi dootu liggéeyu Italie kese international la ndaxte ca Sénégal tamit. mën nañu jital ne sëñ Cheikh Baara mi nga xam ne nii moo bàyyikoo ci xalif général des Mourides mi ngi fi kon buñ ko tuddee rek tudd nañ ñëpp te rawatina tey Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos ñi ngi ci biir saal bi Hizbut Tarqiyyah bu mag bi tamit kenn ku nekk xam na ne ñoo ñoom ñoo mas daan ànd bi naka jekk ñuy déplacé seen jëwriñ yi nga xam ni ñoo nekk ci euh, ci réew mi di ñëw di ànd ak ñun guddi kon coppite gi buñ ko doon tudd tey coppite gi dañ naan am nag coppite gu cent coppite gi nag teewul kuréel yi ni nga xam ne nii dem nañ sax bay lëkkale kuréel régional ab région boo xam ne nii da nga fa fekk lu mat juróom-benni kuréel ñu def sélection régionale mën naa ci joxe misaal Toscane gëm a dëkk nga xam ne ñun ñoo ngi ci juróom-benni kuréel wante ci biir juróom-benni kuréel yooyu rek ci lañ tënk genn kuréel kese def ca sélection régionale mu teewal Toscane gépp te teewul juróom-benni kuréel yi ak taalibe Serigne Touba. yi nga xamne ño nek ci toskaane yépp ñi nga takku and ak ñun ci bir saal bi kon lolu ak coppite gu mat sekk la go xamantene ni gu kawe suñ jortu la niñ daan wax rek moy dox jëm ci sëriñ bi dox jëm ci lu bax lu bax mo lay rawati na jëm ci Touba kon ñun japp nañ ne biñu doxé na dann sëñ bi rek sëñ bi daf ñoo gatandu ci anam yep nak ci anam yépp nag ndaxte and nañ ko talibé sëriñ Touba yep jërëjëf Baye Mbacke xam naa rek ba tey kon ak sëriñ Mouhamed Fall rek kon gannaaw bu nuyoo baax sëriñ Mouhamed di la masawu baax coonee mbégte yi ak coonee bànneex koy jànkonteel te lépp rek daal ko Baye Mbacke waxee rek mel na ne kon lim na fi ay délégation yu bëri yoo xam ne jóge nañ ci gox yu xaw a fasantikoo teew fi ak yoo xam ne na ne ci ay gox lañ daan jóge waaye mel na ne takkoo nañ nekk benn kuréel ci ay région kon sëñ Mouhamed yan soññee rek nga ñu mën a andil yoo xam ne day jëm ci kuréel yi nga xam ne ñu fi teew di fi jàng at mu nekk ak ñi nga xam dañu fiy ñëw di safoo xes day saa su nekk te nekk fukki yoon ak ñett ñu koy taxawee fii Touba Milano Baye Mohamad aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina waaw jërë jëf ci laaj bi ma laaj xam naa dama koy sof rek fii sëñ Mbacke Mbodj jam waaw soññe bi moom du lenn lu may gën a fonk xasida yi gën koo fonk ni ko sëñ bi jàngale gën koo fonk ci am njàng gën koo fonk ci toppatoo ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax xasida li mu doon ci sëñ bi bu ñu xamee li mu doon ci sëñ bi rek dana ko gën fonk ndax xasida mooy sëñ bi wax sëñ bi dafa wax maqaami an siwa baaxil qadim kon da kon bi nga xamni ni mooy mom moom darajey sëñ Tuubaa rek lañ ko mëna jox te maqaamaam nee na kudul borom xamuko kon fonkel gi rek ci liñu gëna insister ndax li nga xamni am nañ ko ci gone yi ñu nekk ak ñom ci dëkk bi ñu mata wattu alquran ak dina ko wattul ñu mata wattu mata sam alquran ak dina ko samal ñu mata yar alquran ak xasida dina eh, eh, yaral loola amuñu njukkalu Sëñ tuba amuñu njukkalu qasida kon li nga xamni ne may fonkel rek moy tax ñu man ca jëriñu nañ ko fonk diko jang te señ bi tax te di dundal te dundal gi nga xamni mo ci li señ bi waxon rek ab taalibe wax ni dundal qasaid da ca jital xamuk lama wax mu jëm ci tawhid ci fiqh ak lay tasuf lolu moy li ñu wara dundal ci liggéey bi fexe xam li nga xam ne moom la sëñ bi bind ngir sunu diine fexe xam li nga xam ne moom la bind ngir sunu liimaan suñu sax ak sunu ihsaan ngir defal sunu taalibe loolu bu nu ko bàyyi ginnaaw mukk njàngi mi neex na mi ngi def li li war ci nun mu ngi koy def waaye nañ ci boole li nga xam ne sëñ bi da koo bind te jàngale ko te muy rafetal sunu sunu islam xam-xam boobu buñ ko bàyyi ginnaaw soññee bi loolu rekk lay doon ak gën a góorgóorlu ci sàmm dëppale ko ak li xasida yi bëgg dëppale ko ak li Sëriñ Tuubaa jàngale ci xasida yi ñun daal loolu rek la am lu ñu ciy dolli ñu ngi leen di gërëm waa euh, waa Touba Monde bi ci seen taxawaay ndax lii day dundal liggéey bi day gën a dundal yoon wi day gën a tax liggéey bii ñuy def nga xam ni dana koo teg ci bëgg lu baax rek ndax sëñ Mbaye Jaxate dafay wax ni utte ut leen itte ju rëy sàkkuy ngërëm fexe ndam ut leen it yu rëy sa sàkkuy ngeureum fexenam ci lolou rek ci lañ nekk bëgg ngërëmal Serigne Touba rek mom lañuy ñuy xeeñtu ngeen jëf yalla nañ ko suñu borom defal defal ko mboolem jullit jërëjëf. jërëjëf Baye Mouhamad jërëjëf Baye Mbacke jërëjëf Baye saliw kon mbokk yi kon ñu xamna rek ñu yalla ba ci biir inshallah dajé daje yeneen kilifa yi ak yeneen mbokk taal bi ñi ci biir bis bi ngir deglu xass day jërë ngeen jëf ini xaadimu nasara سيارين مالك مصطفى إني خادم النصارى سيارين مالك مصطفى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كون موكي euh, ñoo ngi ci biir euh, salle bi batay rek ci bisu ci édition 2017 bi ñu taxaw rek ak Serigne Mor Diaw ah, Serigne Abdou Diaw euh, bu Touba Toscana Serigne Abdou ginnaaw bu baax rek la mu mel ne ren ñi ngi ci fukki yoon ak ñett ñuy taxawee bisu xasida bu Touba Italie ren ñu defe ko fi nga xam ne nga defoon niki daaw muy fii ci Malpensa ci dëkk bii di Busto Arsizio euh, ci Varese gannaaw bu ñu nuyoo baax Serigne Abdou di leen masawu coono yi mbégte ak coono bànne yi nga xam ne wax deug yalla man naa ne baag léegi waaye rawatina tay ji ñi ngi ci nekk ñun ñep rek señ Abdou yan yan yan yan yan nga am bis bi nga xamne ren ren teewaat nañ ko te muy fukkee yoon ak ñett ñu koy taxawee di ko dundee la xasida fi touba yi fii Tuubaa wa rahmatullahi taala wa jere jeuf loolu de dana doon lo xamanteni bi lu reey la bis bu demé ni ndax dafa doon bis boo xamante ne bii amul kenn ku ko am ku ko mës a dégg ci àdduna ku ñuy taxawal mu jóge fi bàyyi fi ay jëf jëf jooju ñu nekk ca maanaam léegi di ko taxawale nii ñu koy taxawale ndax Serigne Touba dangeen a war a xam ne moom ñaar rekk la am fii benn bi moo ko defal boppam mooy liggéeyam bu rëy bii di xasiida yi ak li mu liggéeyal lislaam waaye itam ak jumaa ji nga xam ne daf koo santaane xasiida yi nag moom da koo defal boppam jumaa ji nag daf koo santaane gannaawam ñu euh, defal ko ko kon mooy ki nga xamante ne bii ci àdduna moom la yàlla jagleel bis bi saxaaba ya ko jiitu woon xare nañu def nañ ci lu ne ci lislaam waaye lii sëriñ Touba am amuñu ko woon mooy kon li muy firnde la ne maanaam léegi man koo xam ne damay des ba faw du ma fi jóg kon Serigne Touba maanaam léegi mi ngi fi xasida yi nag dafa doon loo xamante ne bii ginnaaw alquraanul karim xasida ti moo gën a kawe lépp loo xamante ne bii bàyyi nañ ko fi moo tax muy wax naan xasiidati faqat xasaidul kiram sama xasida yi moo gën a kawe mboolem xasida yi nga xamante ne bii gaa yu baax yi bàyyi woon nañ ko fi di ko def kon doon na loo xamante ne bii tey jii dan koo war a fonk ndax ab liggéey la bu rëy boo xamante ne bii xasiiday Serigne Touba yi dafay nooyal lépp loo xamante ne bii lu jafe won la lu euh, foo xamante ne bii ay jafe-jafe am na fa fuñ ko fay jànge bu nekk dafay daal di nooy waaye itam dafay defar itam wëlbatiku dafay defar nit ñi kon loolu dafa doon loo xamante ne bii dañ koo war a fonk te war cee taxaw wax saa su nekk ndax sunu defaru tay la sunu defaru ëllëg la ndax khasida mo ci alquranul karim lako lako borom bi lako borom jële ndax mo wax ne mom yàlla daf ko ubil lawhul mahfuz te wutul manam fum ko sakal fu ko neex manam legi ci lawhul mahfuz lako yàlla ubil buntu boba kon khasida yi mi ngi jóge ci lawhul mahfuz alquranul karim mi ngi jóge ci lawhul mahfuz te itam la maam Cheikh Ibra waxoon ne ñoom ñaar ñëpp de ci lawxul mahfuus la ñu jóge waaye xasida yi ñu moo fi mujj kon nag xasida dafa doon loo xamante ne bii murit bu ne war na caa taxaw ba maanaam léegi fonk bis bu mel nii ndax bis bu mel nii kat mooy sunu defarug tey mooy sunu defarug ëllëg mën nañ cee doxee wu ci ñun ñëpp. jërëjëf Baye Abdou Diaw bu Touba ñuy sant baax ci leera yooyu xam kon mbokk rek ñu ba ci allah fi